tey moom faatu rek lay bége faatu man ci dëkka la googu faatu ngay yab sax ñu ma ko dee ah yab ko seet ko yab di nga xam ne faatu moo mën avancé yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a neex ndékki añ reer teral say gan weeru koor yaa ca mën saucisson faatu am na boo fa ginaar réew mi ñoo ko defaree set na sell na booy jënd jëndal li nga xam toj na am na un kilo ba cent vingt cinq grammes tani ma waxuma ko indi ci dëkk bi di defar ci biir saucisson Fatou judd na réew mi ko moom Fatou la première charcuterie bien sénégalaise woote dana bàyyi xel ci ndox li benn waaju baax dina neex ay rey kese dina neex ay ndogu kese dina neex ay xàkkataay dina neex ay ndogu kese dina neex ana borom bi la eh a taxal seetaan nga télé déedéet nga rajo déedéet eh, kooru waaju baax jar na seetaan li ma la ci am baax daa bàyyi ba ma ñëw fii andi sama yaay bagage yi mhm. naka laa delloo fekk fa benn xale bu jigéen bu toog di ndogu ak moom baax man war na maa def loolu man mhm. ba pare sama biir kër bu doon sax moom moo dem ndogu ji wante mu andi xale bu jigéen bi sama biir kër mhm. baax lii la may faye ante dëgg nga bëgg a dégg gis nga lii sa jëkkër def yow la bett waaye bettu ma man sa jëkkër dama ko xam bu baax xam ka tax yow ba nga sey ba tey gis nga ma fa du fa ñew ndax sa jëk baaxu ci biti baaxu ci biir baaxu sax ci àll sa jëk dafa bon sol bu bon jël ndoxu bon sa ngooga yow sa jëk musu baax te du baax lii nii wallahi bettuma ma waaye nag occasion la ndax dama ni woon séewa nga dugg sama kër gii gis nga anta marsa yaay ñoo bokk ndey ak baay fii nga ñëw nii danga fi war a ñëw ba mu neex sa jëkkër yow la yeb ak sa yaay way yebuma man fi ngay toog yow xana yow gisso sa bop yow bax bu xamu yow yow yaay kan yow nga xam sa bop yow anta yow kan sha allah kula gis beug la nga top ki nga xamanteni ken xamul ndax dafa mat wala matu mu melni pal matu ye amul lant amul yaram amul dara nga ngoy si mon ba tax mu toroxal la ni waye day jeex sey bi moy tas nga tok fi ma defaraat la ba nga gëna bax may la kené de mom Tata Awade moom waxul fase na ma de moom waxul loolu moom dafa ne man maa mer sax mën ne naa ñëw rek toog fii. Anta en attendant ngeen di wax. dañ may déglu bu dee baax dana liggéey liggéey ba laay taj liggéey ba laay toj sëy bi mooy tas man maa ci kay tas may la baat ñaanoo baat waaye man maa ciy tas sëy bi Anta wala déggoo ma yow fii doo fi jóge te dinaa ko wóolu ba mu ñëw mu toog nga toog mu fase la si sa kanam pour muy leer dégg nga ma wala déggoo ma ak ka fayda fayda yow lañ nga gis si waaju baax waaju baax dafa baax muy caga cagaa tax nga bàyyi ba nga dem muy fat jigéen si weeru koor bii dafa baax waaye dootu ko defat sa yaay lay tottiire di ko xasab di ko dàq këram ba ngay tub ay bagaasam di ko indi waaye fii sama kër la maaka moom te bu ñëwee fii fii la may fekk fii la may fekk fii laa koy xaar bu mu ñëw sëy bi day tas anta kër gaa ngi yaatu na man kese maa fi nekk boo fi nekkee da nga fi war a nekk boo fi yaa ngi nii yàmbala néeg bu la neex dëkkal yow da nga ñàkk fayda ay bu doon maa yow ndogu la muy ndogoo ba raadu bu tàng ba dama këy dóor ba mu xam jël ko sotti kaka bu demee dina am lu mu nettali noonu nga waroon a def noonu nga waroon a def anta way wi am daanee su demee lan lay wax dama ndogu ji woon jëkkër jëkkër jaamu ji soo dem dina ko wax du ko wax man li mu ko indi si sama kër rek man moom ma metti waaye moom waxul ba tey ne moom moo ma yow anta am say noppa dégg naa la de baax fasew la ñaanoo ko baax da nga mel ñoo di kalaame yaa dematul man maay kii tas sëy bi. yàlla borom adduna ay jigéen na xare xam. waaw baax man am lu ma jaaxal démb ba tey mooy ante dama koo gisul ci kër gi démb ba tey fanaanu fi yennuwu fi xanaa daa am xew wala mu am kii ngénte ah. wante da amul tak amul ceet lu xew wante da léegi da ah waaw da bapam, boppam xeeb nañu xeeb lol xeeb nañu trop xeeb sunu tu tu famille bi ndax anta danoo waxtaan bi ñuy waxtaanee mu di ma lu ma la doot muñal dootuma la ko muñal hmm? sëy tuuma te yàlla tax sëy nag fi nekk day am intérêt ma intérêt bi la la anta na ma koor sama consolateur day fees dell ak sama waañ de lek net dépense bi di teggu sama loxo mat seuk monoko ma dem sama kër nday nga may ma ma dem sama kër nday toog fa man ant day kaf wala lan ant na ma kafuma ndax ay la ngeen yak sa mak du ngeen nitu dara xamoo leen ko leen defal teraanga man histoire bi lu ci yoonu mama Aïssa lan mo ci yoonu mama Aïssa bang ko ci xale mak yaw la munu mama Aïssa du nitu dara mo nan la bul joxe moo tax mana ne ko bul waxe ni kamu na ma xam nga lu ma lay xamal mayma sama baat ma dem ma bañ ante poñe ma xam ne la suma ko mayul baat man damaa gañ wala mu def dara ndax ante ma upp doole man dama ma ko jël sa baat ante daal di dem ni, ni lañ ci toll. yow ante xamul boppam de yow ante warna tok dila di wax nan la deul ma frigo bi ganaar rek te yow ante ga jaar ak mom fu ne ah. muñ fi lu ne ante ma ci fi lu yoy fi xoram ma ci fi kaani ah. lu ne mu muñ ci kër gi ba ñëpp naan anta anta anta ah. anta taxaw di la wax lii anta taxaw di la xeeb yow ngay gor di doomi gor ah, ah. ah fu ne nga jaar foog moom defal ko lu nekk anta nag xamul boppam de anta di laa gën ci ndey wala di laa gën ci baay xeeb na sama njël ma ne bu la bàyyee nga wuti keneen oye le problème Sénégal jàkkee neen la fu ay taxaw noddu anta nag xeeb na xal ci dàggamu lakk ko naw loowu la de. noo amul lu mu la yekkul nag amul lu mu la yekkul nii dem na. ay eh, waay. anta de bàkk na njaag te njaag di kut. fu may jëlee si jabar mooy. anta man la ciy boole. ah boole na la ci de boole na ci de. anta de dina dégg daali tey dégg daali masaaya xam nga lu ma bëgg damaa bëgg nga jóg ñu dem kër anta. pour ma dem régler koog régler koog moom yow ngay sama rak anta taxaw di la yàq di la xas. bu la ñaanee baat danga ko koy may jógal ñu dem pour ñu jógal ñu dem damay dem laaj ko lu tax mu di la xeeb ak di ma ci booleeg di la wax lu bon ak di la teg loo mënul jógal ñu dem boo demee tamit tax mu ñëw ñu dem du ñëw day mën a ñëw ñëw mënul la ñëw balaa ngoon ma wutal la keneen nga dugal ko ci kër gi xale bu mel ni dan te dina la sëyal booy maq doom sax wala ngay maq cox dina ko ànd ak yow jógal ñu dem ah. jógal seetaan nga télé déedéet déglu nga rajo ngoru waaju baax bi jar na seetaan waaju baax la mu woote taxawal xaar ma xam naa sa jikko taxawal xaar ma may ma rek ma dugg wax sa jabar mu génn nga yóbbu sa jabar taxawal rek xaar ma may ma lool rek dimbali ma ngir yàlla salaamaaleykum anaanta ku ma seet waaw kay ku ma seet yow laay waxal yow sa doom ji ku bon la defa nga ne war naa téye sama rakk ji di ko torturer naan ko dugal frigo bi def ci ganaar def ci nen ak def ci lu nekk ah ab xiif bu taxee mu daw ñàkk na jom bés bu yàlla sàkk jabari maam booy jaawo ji mama jaaju jox ko ay yére jox ko ceeb jox ko diwlin mu wan ba ne faaj anta xam nga ne bi muy dikk fii ah gisoon ngeen ko te nag lenn maa ngi la koy xamal bu mun ta ñëw dem rejoindre jëkkëram ji damay takkal baax beneen jabar mu toog ci kër ga ne denc sëy. yaa mooy tufli. gisagoo dara sax dama lay xaax te ne ah, am nga sens. <laughs> yow du wax ak yow dara man dama wóor ba ngoon jot doo ñëw jóge fële xaw ma asma nga yore xaw ma loo yore yow mbaa doo sama kaw yow danga war a laaj sa rakk ju góor ji ngay jëlal paar lan la def. lu toll ni wéru ko mu nek ak jigen ci bir néegul ci kaw lalun anta di cagatu xana boy cagatu ba weeru koor nga mëna tok lolu mo mënuma ko gëm <laughs> ah da nga ko jigéen yow bala nga def da ngay laccé yeen xana tay lañu sase seeni frigo xana tay ngeen am dara yeen bis bu ne dañ leen di muñal waaye yow may àkk ni nga may àkk xam nga ni yow wéru koor lañu nek nekk bu du koor dinaa dox ci sa kaw mbaa ma yëg ci sa kaw def la loo xam ne ñëpp dinañu ko coow ngay ratata di jàpp ma tufli ma ba ma tooy yow sa sa sa rakk di caga. yow eh, kaa gëm sa rakk di caga. eh nekku sax caga bu ndaw. bul daana nga di maamu caga yooyu la. xanaa nit booy cagatu di cagatu di njaaloo ba weeru koor ñëw nga mën a rus weeru kooru yàlla bii bàyyi sa bu mu paase nga dellu si li nga meloon ant bu ñewul woon sax bu ñëwoon wax ka kese te ñibbisiwul sax man maay jëli ant dama nga waxtaan ak sadaka ka eh, ñàkk kalaas bul daanu ku ma sekk daanuwuma dama am gàcce dama xajut ci gàcce asgur moomut gàcce maa ngi déggulu la ma expliqué moo tax ma jëwe nii ne ma anta xas na la lu bon lu ne wax na la ko moo tax ma dikke nii waaye maa ngi déggulu maa ngi déggulu bu ma yeggee nag dina xam ne lépp dëgg la baal ba ma yegg ci kër ga maa ngi jéggalu baal maa ko weeru koor la nu ne dootul amati yeewu leen yeete leen waaju baax la mu woote dana bàyyi xel ci ndox oh, fen yaa ko tëj yow li nga ma expliqué ak li am c'est diamétralement opposé ñii tey bu fekkoon ne àndunoog seen sago duru nit ñu dal tey dara dina tuur dina di yëg ak wàcc xanaa xamoo ne fen mën naa yàqum réew réew rek Sénégal gii rek fen rek mën na koo yàq mu tas yow fekk ma kër ga duur rek ngay def lam bi duur yaa ko tëj fekk ma kër ga te waa lek les conséquences tey rek ngay xam ne lépp dëgg la ñëwal ñëwal ak li ngay mën a fen toogal ne dégg na def buy sëy yow nag làmbi fen yaa ko tëj yow boo dee rek fen jeex yow ndekete anta li ma kumba sekk wax ak meer wore looloo am ndekete yow dangaa meeb xale bu jigéen dugal ko ci biir kër gi lu toll ni weeru koor ngay meeb xale bu jigéen dugal ko ci biir kër gi anta fekk laa xale bu jigéen bi ngay fen di ma jaxaseeg anta naan anta lii la la wax anta la la wax anta daf maa bëggoon a def nii anta yow yaa bon yow nag ci yow laa gise góor gu yàq deru jabaram góor gu yàq deru jabaram rek laa bañ lii nag moo tax nu naan benn lay pàq la tey jii su fekkoon ne demuma kër ñoom anta du ma xam nu mu demee ma romb anta di ko mere te anta jigéen ju baax la anta di fu la dara lan lan la xale bu jigéen bi dàqee anta lan la ko ëppalee ah man damaa meeb kenn man damaa yow meeboo kan laa yow xam nga li nga def xam nga li nga def jotagumaa gis anta waaye bu gisee anta même chose la may wax la ma commencé ko wax ak mère Woré looloo am yow làmb fen yaa ko tëj sa fen wi nag dafa prématuré matut matul am jabar mu am hygiène de vie set wecc béy bu tagalu sax ro bu la rombee nga ne xale bu jigéen nga yow mënoo tari sóoratu muñ te bàyyi xale yu jigéen yi te yem ci sa jabar ju baax ji nga xam ne muñal na loolu ne yow yaa mën a fen. man bu dee mën a dootoo def bii xolal togguma yokkuma fóotuma paasewu ma wutal ku la fóotal ku la paaseel ku la toggal su yeboon nag nga dem inscrire ca ca may gaba di mbëkk rido man su heure dogu jotee xam naa fi may dogoo kër astu laay dem tutu astu walla ma dem ndogu ji kër Seyna bu mbay rek madame Diafar un des falaay dem te damay ndogu ndogu lu neex baax bu soobee yàlla boo bëggee def bii di nga seet nooy def li ngay yées te bon yow loo dégg tey rek na nga ko muñ sim na nga jéem a nag defal sa bopp lala anta daan defal sa jabar ji nga xam ne muñal na la lu ne yow yaa bon te yées lu tal ni weeru koor ngay meeb di doxaan doxaankat bu mag bi nga doon yow doo rus sax yow jéem a la wut ku la toggal yo menyangka tang deren yo manyang katang denc de koru waju ba di jarna setan tay mom fatu rek lay bege Fatu man yap ko set ah, ko ah, yap di nga xamne position fatu mo man avancer